assaadihu ak juróom-ñaareel gi sabilullahi mooy yoonu yàlla wala muraadu lañu namm bi ci moom al jihaadu mooy jihaad duunal xaj yi ci dul aj yena wa fi sabilillahi ci alquran wax dañ ciy jublu jihaad ci yoonu yàlla nga xam ne aj wala jàkka wala daara yooyu bokku ci dafa am ñu ko yaatal nag ba di ci boolewaale jàkka yeeg daara yeeg yëpp mel noonu waaye nag di gën a wóor daal mooy innama ji ci bopp laay ji moom day takk te boo nee yoonu yàlla lépp lu baax dugg na ci day mel ne kon takkatoo ko lépp rek lu baax dugg na ci may suñu ko caa def moo tax njëkk yi daal dañ ko daan yemale ci jihaad te ba léegi ñu bari ci borom xam-xam itam foofu lañ sukkandiku ba léegi bay du faxam def na jiñ mooy def na jox lil xaal si ñaar aji xareja kaana moo xam nekk na rani yéen di aji woomal aw faqiran wala muy aji ñàkk mina sadaqati ci asaka maa la nga xam ne yéen fiqkoo dana ko dundale fii xas bi ca xareem ba nee na kon koo xam ne jihaad ci yoonu yàlla mënees na koo jox lu mën a jëfandikoo ca jihaad ja moo xam nag bari leen alal moo xam bari li wut alal waaye dañuy sart nag mu nekk gor tey góor tey jullit te man boole ci te bañ a bokk ci banu haashim ndax banu haashim dañoo waxoon ne muy njabootu yonent bi duñu lekk asaga ak taaminu juróom-ñetteel bi ibnu sabili moo di ab doxandeem waxuwa moom al musaafir mu aji tukki ja al xaribu jëli aji tumuranke yontaa def na ko jox bi salaasat shuruutin ci ñetti sart an laa yakkoon ak mu bañ a nekk safaruhu tukkeem ba fii maasiyatin ci mooy wa an yakkoon ak mu nekk faqiran di aji ñàkk bi mawdihi ci béréb ba ëll fii ba nga xam ne huwa moom bi nekk na ja wa in kaana ak doonte nekkoon na ganiyan di aji woomal bi baladi yi ci ak dëkkam nee na ab doxandéem boo xam daa tag ci béréb mënees na ko jox asaka ndax mu tàggantiku waaye ci kaw ñetti sart bu njëkk ba mooy tukki ba muy tukki bu mu nekk tukki mooy mooy benn ñaareel ba mooy foofe mu nekk na fa ñàkk lott fa ci béréb ba mu nekk waaye bu fekkee ne léegi ñàkkul lottut doon nga ab doxandéem doon lu tax ñu war koo jox te aajowoo mu ñàkk lott ci béréb boobee mu nekk doonte sax moom fu mu dëkk bari la ndax waaye fii mu nekk moom lott na fi te amul ku ko lebal rek kon des na ko jox waaye nag bu fekkee bari na alal ci fu mu jëm muy dëkk ba mu dëkk te gis na ko mën a lebal ba mu dem ba foofa it kon lorootut ba tax mu teg ci sartu ñetteel bi mooy wa an laa yejida ak mu bañ a am man koo xam ne yu sallifuhu dana ko lebal ndegam fii mu nekk moom néew na fi doole ñàkk na fi waaye nag fa mu jëm am na fa alal ju bari ju mën a fayee ci buñ ko lebalee fii te gis na ko lebal ba mu dem ba foofa dañuy jàpp ne kon lorootut bu fekkee gisul ko mën a lebal bari li gën bari li foofu di leen jox ko bu fekkee foofu am fa lu mu fay it waaw koy bu gisee ko lebal te ñu mën ko jox asaka ndax ne ko muñ ko lebalee amul lu muy fayee foofa ba tey kooku téew koo loro wayu saddaqu def na ko dëggalal nag i saddaxaan dem woote ne ne ànd fa naka moom ibnu sabilin ab doxandeem la su ne man ab doxandeem laa te gis ne moom melaw ku ñàkk la amee melaw ku loru la amee say boo ñu gëm ko jox ko asaka ndegam dëggu fa du neex xam ba xam li mu woote dëgg la am du dëgg kon say boo ñu gëm la mu wax rek faslun yajuus na dagan ixraaju zahabi génne wurus anil warixi walis xaalis wal warixi ak génne xaalis anil zahabi walis wurus nee na wurus ak xaalis mën nañoo weccee ci wàllu asaka nga ngay wurus waaye caa génne asaka nga bañ a génne ci wurus wa te seet lam tollool ci xaalis nga joxe ko muy sa asaka ak ngaru xaalis war a génne ci xaalis ba asaka nga tëye xaalis ba te seet lam tollool ci wurus nga joxe ko loolu lépp dara aayu ci wa tajibu dana war niyatu zakaati yéene asaka ja asaka boo koy joxe da nga koy yéene yéene ji nag moom bu fekkee ba nga koy joxe da nga caa nar asaka nga xam ne ku la bettoon ne la waaw li ngay joxe nag nga ne asaka laay joxe rek dal na doy waaye nag bu fekkee da nga koy joxe ba àggal gannaaw ba sam fa door a dem ci waram na maa joxe asaka nga seet ne ki nga ko jox na nga léegi yelloo na asaka doone ah kon laa ko jox léegi far naa ko féetale ci asaka ja déedéet faaw day aajowoo nga yéene loola muy sa asaka wa tafriqatuha akuk tasaareem bil mawdihi ci béréb ba àll si ba nga xam ne wajabat waree na fii ca moom wala yajuusu tey du dagan naqluha doxalam nga xan xu jële ci béréb boobee illa an yakkoona dara bu dafa nekk mawdihum béréb aaxaru beneen bihi ba mu nekk na ca fuqara way ñàkk achet bi ñu gën a dara in daaman ci ak ñàkk la fa indaxoo na koy naka lay mbir moo di yontaa def na joxe min haa ci asaka ja fi mawdihil wujubi ci bérébu warga wayun xaluti def ci toxal ak firuha gën jaa bareem dil ahadami ñeel béréb ba gën a ñàkk wala ñeel ka gën a ñàkk nee na asaka da nga ko war a joxee béréb ba nga xam ne alal ja ñu génne asaka foofu la nekk yow mi borom itam nga nekk foofa béréb boobu fa nga war a joxe asaka ja waaye nee nañu nag li la wër sama doxu wàññi rek weesuwu ko ëpp ko foo ko fa joxee rek mu baax doxu wàññi nag moom benn tolloo di gën a néew dana mat soixante onze kilomètres yu tegal jëm soixante douze am na beneen rafet nag boo xam ne boo ko toppee dana mat quatre vingt neuf kilomètres yu tegal ay mètres diggante bi la wër toll noonu nag moom suñ nga caa joxe asaka ja ja soo bëggee weesale asaka ji distance bu toll noonu nag day aajowoo ñooñu nga ko jëmee gën a ñàkk ñi nga xam ñoo nekk fii bu fekkee ne fi nga nekk am na fi ñu yelloo asaka waaye béréb sàngam ñoo gën a loru ni nga nekk réewi tubaab yi di fa liggéey war a génne asaka gis nga foofa ñu yelloo asaka waaye jàpp nga ni fii nga bàyyi ko ci Sénégal ñoo gën a loru ci asaka ji kon na ngay joxe lenn la foofa li ci ëpp na nga yónnee ko ci béréb bi nga xam ne ñoo gën a ñàkk gën cee loru faslu li ab dog la ida xasala ndem berna azakata asaka ja indal xawli fa matuk atma fa daaxatte mu sànku la mu yàgg man kon du ko waralo nee na su fekkee at mi daa mat nga seet lay asak lay sa asaka génne ko dara ko fee ndax bëgg a gis koo ko jox ba jox ko ko far na nga yeex a gis koo ko jox ba mu far laatu mel ñu sàcc ko mbaa mu lakk mbaa dara su boobaa kenn du la fayloo asaka ja ndax sa jaan wàcc na ndegam yow sàgganoo ci rek ba nga ko génnee teg fee yaa ngi ko doon sàmm baax di ko wattu doon xaar nag gis koo ko jox ku ko yelloo nga yéex a gis nag ku demee noonu ba far asaka ja laatu waaye yow sàgganoo ca kon kenn la ca topp dara sa jaan wàcc na wa in xasalaha ndem ber na ko baxdal xawli ci gannaaw at ma damina kon mu gàddu ko bii nga weesu naka at ma mat nga daal di gaaw génne asaka ji ber di xaar ku ko yeyoo ñëw nga jox ko ko ku ko yeyoo yéex a ñëw nag ba mu sànku kooka moom nee nañ la dara waru la ci bii nag moom mooy at mi jàll na ba teg ci fan mën nga koo génne ber waaye difoo ko nga sàggante nag ba ami fan nga door koo génne ber ba nga ko génnee bu ber ko nag far mu laatu ne ki kenn sàcc ko mbaa mu lakk mbaa dara boobu nag moom faaw nga fay ndax na ngaa xaw a sàggan ci farluwoo ci at mi dee rek ci saasa nga daal di koy génne ber dangaa bàyyi ba tegaat ci fan door koo génne ber loolu rek moo ko wutalee bu jëkk ba wa in xasalaxaa ndéem ber na ko su ma baaxa topp sànku asluxaa cosaanam la xabla ixraajihaa ci njëkk ak génneem fa indaxoo naka moom yedd fam xaa dana ko jiñ mooy dana ko jox li arbaabihaa ñeel ay woroomam nee na boo génne woon asaka ji ba ber ko teg fii ñu ñëw nag jël sa yëf sa alal ji nga moom ba génn ci asaka moom lañ sàcc ci misaal waaye asaka ji kenn lalu ko li wax mooy nga génne asaka ji ber ko ba ñëwee ñu fab sa yëf bàyyi fa asaka ja loo wax ne nga fab nañ saa yëf ay far téye asaka ji déedéet nga koy joxe rek wa man maata ku faatu xabla xabla ixraaj yi sakaati njëkk génne asaka ja aw aw saa wala mu dénkaane dexaa ca moom fay naxaa naka moom tuuxasu def na ko jàpp min si maali yi ci léppi alalam nee na bu fekkee nit dafa faatu bàyyi fi alal joo xam ne asaka war na ca te xam ne ni génne génne gu ko ci woon ne ki mu faatu bàyyi fi mbay moo xam ne ñor na xom ba asaka war ci te jotu ko woon a génne mbaa boog mu bàyyi fi wur sa xaalis mbaa juru kër goo xam ne xam ne ni moom waxtoom ko daa asakaal jot na waaye jotu koo génne kon dañuy jékki-jékki bala ñoo miraas rek ñu génne asaka ja ko defee nag buñ séddalee ku ne yóbbu sawaan fekk na asaka ji génn na fa noppi fekkee nag ba koo koy faat daa fekk asaka waragu ca kon dañuy miraas rek noonu waaye kenn ku ne yóbbu sa wàll wa yustahabu def na sopp fii sadaqati tatawuxi ci saraxus coobare wu assiru nëbbu maanaam booy saraxee sarax soo xam ne waru la da nga koy def ngir yàlla rek bi sañoon nga làq ko kenn bañ koy gis bu doon asaka naw nee nañ dañoo bëgg nga feeñal ko fisal ko ndax ku fàtte woon jox asaka fàttali ko ci yow ku sawaratoon daal di sawar ndegam asaka ju war la lu may ne nga ragal ca ngistal mbaa dara soo di ragalee ngistal moom sa yeboo làq ko ba nga koy joxe mbaa nga joxeloo keneen waaye bu dee asaka ju war moom boo ci sawaloon ngistal nga joxe ko bu fés ndax ku fàtte woon fàttali ko ak ñu roy ci yow joxe asaka ja moo gën bu dee saraxus nag coobarewu rek nag moom nga làq ko rek moo gën kenn bañ koy yëkk wa sarfuha akuk joxam lil aqaari bi ñeel jegeñaale wal jiiraan ak dëkkandoo ya sopp nañ boo xasee bay saraxe say mbokk ya ca loru ak say dëkkandoo ya ci loru nga yem ci ñoom bañ leen a weesu dangay jëkki sa bopp boo ca loroo say boo saraxoo ko sa ndey ak sa baay buñ ca loroo say boo sarax leen ko kër gi nga nekk buñ ca loroo bul koo weesale ñu jëloon nga seet ni sës ci yow te loru ca watata ak këru dana feddliku fii shahri ramadaan ci weer ramadaan saraxi moom jamono yëpp lañ ko sopp jamono yëpp la bari tuyaag waaye nag rawante na ci weeru koor weeru koor moom ci lañ gën a taamoo nga bari cee joxe sa alal ngir yàlla nga bari cee saraxee dimbalee ngir yàlla faslun sadaqul fitri muurum koor waajibatun warteef la faradaha sos dogal na ko rasulullah yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muurum koor yonante bi ci boppam moo ko dogal ci mboolem xeet wi góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp rek kenn ku ne ñu sant la ko nga war koo génne tëj bu dana war bi awwali laylati xiidul fitri ci njëlbeenu guddi xiitub korite ga ala ahadil qawlayni ci benn ci yaari wax ya al mashhurayn ya duñ siiwal wal aaxaru ba ci des nag moom day wax ne tajjibu dana war bi tullooxi fajri yawmin xiidi ci fenkuk fajaruk bisub xiit ga dañoo wuute ci waxtu war wa daa am ñu wax ne bu jant bi soyee weeri feeñ ñu ne suba la korite waxtu la jant ba soyee rek ci la muurum koor ware te it as mbir rek lay am bu ñu ca tegee as ndiir gannaaw ba jant ba sooyee rek waxtu war nga jàll na xam ne gannaaw ba ndiir soosee jàllee ku judd ca gannaaw ba murum koor la war kenn kenn war la ko génneel ndax jamono yi war boobu fekkutoon nga bokk ci waa àdduna gannaaw bu waree ba noppi nag ku faatu ñu war la ko génneel ndax jamono yi war boobu fekk na nga bokk ci waa àdduna ba tax mu naa wa faidatul xilaaf yi njëriñu lu wute ga tadhar dana feeñ fii man ci ka nga xam ne maata faatu na aw walida wala jureef ko aw aslam wala mu tuub aw naxwi zalika wala mbiroog loolee nga wax ne muurum koor mi ngi waree ci ba jant ba soyee te weer wa feeñ waaye as mbir rek lay am waxtu war wa daal jàll nga topp wax boobu ak nga topp wax ba wax ne balaa war kat fajar nga fenk ci bisub xiit boobee yaari wax yooyu nga nga topp leen dana amu wóotee ci boo seetee ku faatu woon mbaa mu juddu mbaa mu tuub mbaa mu ñàkkoon gannaaw ba mu am bu fekkee da nga ne daal bu jant bi sooyee rek fa saasa la ware te as bi rek lay am waxtu war nga daal di jàll waaw ci ñu wax nag moo gën a wóor loolu lañ gën a sukkandikoo su boobaa bu jant bi sooyee ci guddi gi xiit gi bañ teg cas ndiir gannaaw ba ku juddu wareesu la koo génnee ndax ba muy war fekkutoon nga bokk ci waa àdduna ku fekkoon nga ñàkk gannaaw ba nga amit du la war ndax ba muy war boobu fekkutoon nga bokk ci ñaam ba tey gannaaw bu jant ba sooyee ba teg ci as biir ku tuub dugg ci lislaam kon ba tey waru ko ndax jamono ya muy war booba duggagul ci lislaam ñi nga wax ñëpp boo toppee wax ju jëkk ji du leen war waaye boo topp wax ñaareel ji mooy nga takk ko ci waxtu fenk fajar wa kon ñi ñëpp dana leen war safaan ba nag mooy ku faatu ku faatu ki moom day safaanoo ci ñaari wax yi ndax ku jant ba so ba noppi ba war nga am mu door a faatu kon faatu ga du tey ñu war ko koo génneel ndax jamono muy war booba faatoo gut te nag ba toppi waxi ñaaral ji ne ma ngay waree ci fenkuk fajar kooku faatu gannaaw ba jant ba soyee kenn waru ko koo génneel ndax jamono fajari fenk fekk na ko faatu moom la saraa bi wax naa wa faidatul xilaafi tazharu fi man maata aw wulida aw aslama aw naxwi dalik ka maratin tazawajaha aw tallaqaha wa moosirin yuusiru wa moosirin yuusiru bayna haadayni alwaqtayni faman wulida bacda alxurubi laa tajibu zakaatu anhu على الأول وتجب على الثاني ومن مات في ذلك الوقت على العكس فتجب على الأول دون الثاني وعلى ذلك بقية الأمثلة ويجوز لنا ذلك إخراجها جنمك قبل يوم الحيد تنجك بشب حيد باليومين تنعرفا والثلاثة أن يتفا بني نبي سكرت بي بان فان موتي ديس با ñaar ba ñett bu la neex dal di génné murum koor fi saasa xam ne kon boo ko jiitalee njëkk waxtu war nga itam du ko tee doy ndegam la ko jiitoo wetuwut benn fan baa ñaar wala tasxutu du rob bi mu bi zamaniha ci jamonoom ja nee na nag bu la waree nga sàggan ba jant bi sotti génni woo ko da ngaa bàkkaar ci yeexe ga nga ko yeexe te du tax mu wàcc la du tee ba tey nga war koo def wala tudd ba mu def ko jiñ illaa li faqiiri ndara ñeel aji ñàkk xurin kuy gor muslimin ku di ab julit moom nag ki ñu koy jox moom muurum koor day nekk ku ca loru tey gor tey julit ndax bu dee jaam ab sangam moo ko war a yoral ay mbiram bu dee yéefar itam li ab jaamu yàlla la kenn du ko jox ab yéefar waxiye moom nag saaxun benn saa lay doon min xaali bi xóoti ahli bële bi ci la ëpp ca dundut ñooñ dëkk ba al muslimi war ab julit al xurri kadi gor al mukallafi kay mukallaf al muusiri kay aji woomal an nafsihi walis boppam waxamban ak walis ka nga xam ne taltamuhu dana ko war nafaqatuhu dundam ba minal muslimina ci jullit ña xaasatan dong wala xaasatan mbir mu ngi aji jagoo bil xaraabat ci ci jegeñaale kal awlaadi niki doom ya wa bi riqi ak ci ak njaam kal xabeti niki jaam ya wa bi xayrihima ak ci kudul ñoom ñaar ka zawjati ni ki soxna wa xaadimiha akub jaamam moom soxna sa wa in kaanat ak doonte nekkoon na maliyatan di aji woomal nee na muurum koor dañ ko wutal tolluwaay saa lay doon saa nag des na ko tolloole ñaari kilo am na itam ñu koy ëppale ñaari kilo am na itam ñu koy manqué li wax ne matul ñaari kilo waaye ñaari kilo yi moom diggu doomu na bopp ne ñaari kilo rek ñu seet na lu ñu ëpp dunde foofa ñu génne ko ca bu ko defee nag ndegam yow julit nga te gor nga te mu kàllaf nga te mën nga ko war nga koo génneel sa bopp génneel ko képp koo xam ne yoon moo la sant nga di ko dundal ñi la yoon sant nga leen dundal nag bokk na ca say doom kon sa doom ndegam amul alal yaa ko war a génneel murum koor ba sa doom ju góor ba keroog muy kàllafe mën a liggéeyal boppam yaa ko war a dundal kon yaa ko war a génneel murum koor ba dee suróom bu jigéen ba keneen koy may jëkkër ba jébbal ko jëkkëram yaa ko war a dundal kon ba tey yaa ko war a génneel murum koor mu dee jamono yi jaam amee sab jaam yaa ko war a génneel murum koor ndax yaa ko war a dundal ba tey sa soxna bu dee benn bu dee ñaar ak sa soxna bu amee ab jaam te muy jaam boo xam ne moo ko moom dëgg-dëgg waxuñu sax muy mindaan bu dee mindaan moom kuy liggéeyal mu koy fay rek kooku mu waru ko waroo koo génne murum koor ndax la mu doon mindaanum sa soxna waaye bu doon jaam boo xam ne sa soxnaa ko moom nag mu di ko liggéeyal moom dangay génneel sa soxna génne waayeel jaamum boobee sa soxna nag moom lu mu bari bari alal yaa ko war a dundal kon yaa ko war a génne murum koor woomal nga ak bari la nga du ca dara waxawul naa suñu wax ja nag ne xalal muslim yi war ab julit ila axiri ba ci ak mujjam ihtiraasun ak wattandiku la minal kaafir ci ab yéefar wa raqiq ak jaam wal moosiri ak aji ñàkk fa innahaa naka muurum koor laa tajibu du war xaleyhim ci ñoom nee na boo gisee mu ne woon ab julit la war nee na ma caa bëgg a génne ab yéefar ba ma ne askor la war da cee bëgg a génne jaam ndax jaam waru ko des ko war a génne laay moom ci boppam waru koo génne ba mu ne aji woomal tam mooy ku man rek jublu bari le ku man rek murum koor ma lañ wax kon nee na ku ñàkk ba nga xam ne mënta génne murum koor ma jaanu wàcc na wala mu asiru aji ñàkk ja huwa moom allasi mooy ka nga xam ne laa yafudulu du des la xoo ñeel ko xan xóoti yow bi ci dundub bisam boobee saax lu toll ne saax wala yooyu jitu tey du am man koo xam ne yu salli foofu dana ko lebal iyaahu moom kon aji ñàkk mooy ki nga xam ne bu seetee la mu war a lekk ci bisub korité ba ba noppi la koy dese du mat saax tey amut koo ko lebal boole ca mbaa am na ko lebal waaye amut yaakaarut lu mu koy fayee ku mel ne kooku moom muurum koor ma wàcc na ko du tee nag bu génnee dundu bisub korite ba la des doonte matul la war a joxe itam na ko génn rek joxe ko albaabu lii mooy bunt bi arraabihu bi aji ñeenteel fi sawmi ci koor te bëgg a dugg nag ci koor waxoo moom al imsaaku mooy jàpp ga maanaam mooy bàyyi ga rek an shahwata yil batni wali siyaari bànneexi biir wal farji ak sawgaay yow man ab bis kaamilan bu di aji mat bi niyati taqarrubi ànd ak yéenee jaleñlu ilallahi jëm ci yàlla taala kawe na fii xayri zamanil xaydi ci ludul jamonoy mbërëk wa nifaasi ak wasin wa ayaamil ahyaadi ak bisi feet ya koor moom nee na mooy nga bañ a faj sa bànneexu biir bañ a faj sa bànneexu sawukaay te jublu ci jaamu yàlla la dale ca ba fajar fenke ba jant ba so te it fekk muy jamono joo xam ne aayewuñ ca koor ndax bu dee jigéen ju gis deret mbaa ñu toll ci bisu korite mbaa tabaski day araam woor kon nag daal buñ tolloo jamono yi sañ a woor la dale ci fajar fenke ba jant bi so nga bañ faa def dara luy dog koor moo xam lu jëm ci bànneexu biir la moo xam lu jëm ci bànneexu sawukaay la bañ caa def lenn ci luy dog koor daal te yéene ci rek ak jaamu yàlla kon loola mooy woor wali saw mi ñeel na koor talaasatu arkaanin ñetti ponk koor am na ñetti ponk al awalu bu njëkk bi al imsaaku mooy jàpp ga maanaam mooy bàyyi ga rek xanil mufsiraati walis mooy dog yi koor kal jimaahi ni ki booloo wa ixraajil man yi ak génne man yu wal mas yi ak génne mas yu wal xay yi ak génne am wàccu wa i saayil akli ak àggale lekk wa shurib ak naan aw xayrihima wala kul ñoom ñaar ilal xalqi ba ca boli ga minal fami tukkee ci gimiñ wal anfi ak bakkan wal udni ak nopp wal xayni ak bët ponk bu njëkk bi mooy boo xasee jàpp koor gi ba yéene nga bàyyi lépp lépp li dog koor ni ki jote góor jigéen wala génne man yu te su jekk woon jekki génn ni ki dafa gént rek ci koor gi ba muy nelaw mu génn du wàññi dara waaye bu sabab loo génne ga nag loolay dog koor ga ak itam génne masiw bu fekkoon ne masiw daa génnal boppam du yàq koor ga waaye bu fekkee moom moo ko génne dana yàq koor ga ak génne wàccu fekk wàccu ma teyu ko daa min daa sibur rek jekki-jekki wàccu te wënnu ca dara ba tey du yàq koor ga waaye bu fekkee moo luuju nag wàccu dana yàq koor ga ba tey mu bàyyi àggale dara ci lekk mbaa dara ci naan mbaa lu bokk ca lekk naan mu bañ ci àggale lenn ci boli ga ndax bu àggalee lekk mbaa naan mbaa lu mel ni saxaras tux ba ci boli ga rek koor gi daal di dog moo xam nag loolee àgg ca boli ga daa bàyyi ko ci gimiñ wala mu bàyyi ko ci bakkan wala mu jaaree ci nopp mbaa jaaree ci bët ndax dañoo jàpp ne bakkan ak nopp ak bët ñoo gimiñ ñoo yemoo lu ci nekk dara mën na caa jaar dara mën na caa jaar ba jàll yooyu nag loolu ci xam ne ñëw na ba ci bëli ga rek bu fekkee lu lu ruy la moom bu xasee agsi ci bëli gi doonte wóoruñu ba xam jàll na ba ci baax gaam de du tee koor gi dokk bu fekkee day lu wow nag nga xam ne ku lu ruy ni ki aw xeer xeer wu dëgër wala bërëm ñëw na ba ci bëli ga waaye taxe na ba yàbbi ko rek jallut kon moom koor ga du dokk waaye nag bu dee lu ruy moom bu xasee agsi ci bëli gi rek mu wóor ko ba xam jàll na ci baax gaam ñàkk wóor ga ñooye moom koor ga dog na ak taani ñaareel bi anniyatu mooy yéene yéene mënta ñàkk ci koor fala yasihu du wér saw mun koor bi doy xaaj lul moom fardan moo xam farata la aw nafil wala naafila te wa yushtaratu def na sart fiha ca moom an takkoona mu nekk moom yéene ji mu hayya la tan di lu ñu ràññeel bi andeen yéen ci mu yéene adaa faradi ramadaana jox faratay weeru koor bi ramadaan masalan ci misaal yéen yéene mënu cee ñàkk su fekkoon da ngaa tàmbalee fajar fenkee ba jant bi so lékkoo naanu waaye jubluwoo ca woore du ko tax a doon koor tey day aajowoo yéene ji ràññeeku bu dee ramadaan nga yéene ramadaan bu dee kooru ngàtt nga nga xam ne kon yéerewoo kooru farata kooru ngàtt nga jublu bu doon bu doon kooru kafaar ramadaan nga yéene muy kafaar ramadaan faaw yéene ji day ràññi ko mu bayyata tam tey lu ñu fanaanoo falaa tax si xudu wér naxaaran ci bëccëg faaw yéene koor dañ koy fanaanoo fanaanoo mooy fa jant ba soyee balaa fajar fenk diggante boobu fa la ñu yéene bu fajar xasee fenk te yéene woo rek yéene jàll na xam ne kon bu fekkee xamoo woon ne tey jii bokkoon ci ramadaan nga xëy suba rek ñu ne la ah weer kat feeñ na biig fekk yow yéene woo woon da ngay jàll noonu bañ a rek bañ a naan te fay bisu boobu ndax daa fekk booba yéene koor ga jeex yéene koor ga jàll mënees mëneestu ko ci yooyu jamono te itam jaasima tam tey aji dogu te aajo woo yéene ja nga dogu ca mu wóor la fan yetu yéene ja almutaraddidatu almutaraddidatu jadi aji déng déngi baasiratun aji yàqu la boo yéenee koor yéene goo xam doguwoo ca da nga doon déng déngi du baax jox la ci misaal fa mën na waa ku yéene laylata shakki guddi sikki sàkka siyaama qadin woor ëllëg in kaana dem nekk na min ramadan di bokk ci ramadan la mu gis yi du ko doy nee na bu fekkoon ne tey day ñaar fukki juróom-ñeent ci weeru baraxlu xamuñu baaxam weeri feeñ na bu suba bokk ci ramadan wala weeri feeñut suba bokk ci yow nga ne man daal daa koy yéene rek fekkee bokk na ci man saajaan wàcc ma tàyyi ci fayante kon xam nga sa yéene doguwut ngay nattable dong ngay deng deng rek kooku araam na nga di ko woor ci kaw rek dégg dégg googu te itam boo ko wooree gannaaw boobu mu wóor ni bokkul ci ramadaan tam du tax mu doy la yàlla ñëpp a yem faaw da ngay fay rek bis boobu kon faaw bala ngaa yéene woor na nga ci am ak dogu te la ngay woor lu mu doon asaayi su ñetteel bi zamanu saw mi mooy jamonoy koor ga waxuwa moom min tulooxil fajri mi ngi tàmbalee fenku fajar ak saadixi ga aji dëggu ilaa xuroo bi samsi ba ca soxu jant ba fi xayri ayaamil xaydi ci lu dul fani mbërëg wa nifaas ak wasin wa yow min fitri ak bisub korite wa yow min naxari ak bisub loj wal yow may ni ak ñaari fan ña baax daxoo ci gannaawam li xayril mutamatti yi ñeel kudul aji def tamattu nee na ñetteel bi ci ponki koor mooy jamono ngay woor ñu sañ caa woor jamono koor nag mi ngi tàmbalee fa fajar fenke ba jant ba so diggante boobu la ñuy woor fan ya nga suñte woor nag moom mooy bu dee jigéen mu toll gis deret moo xam dereti mbërëg la moo xam dereti wasin la day araam ci moom mu woor ba tey bisu korité mbaa bisu tabaski day araam ñu woor ko ba tey ñaari fan ñi nga xam ñoo sës ci bisu tabaski bi bu fekkee defoo tamatux defoo xiraan dañ lay aaye nga woor ñaari fan ñooñu kon bu dee jamono ñu aaye woor kenn du sañ a woor faslun yustahab bu def na sopp taqdimul fitri jiital dog wa taxiiru suxóori ak yeexe xadd wa kaful lisaani ak fekk làmmiñ wa xanil xadayaani walis bébant wal foxsi ak lépp lu ñaaw minal xawli ci wax daa wax ne boo wooree sopp nañu bu dog jotee rek mu wóor la ne moom jant bi sona nga daal di gaaw dog kon gaawee dog dañ ko daal limaani sax ci sunnay koor ak xadd ba noppi yeexe ko mooy dañ ko daal limaale ci sunnee koor moom da ko wàññi ci yéen sopp ak tey soo làmmiñ ci jëpp wax ju amul tuyaaba boo wooree tey soo làmmiñ jëpp wax ju amul tuyaaba loolu sunna lañ ko daan tudde ci yenn téere yi moom mu tudde ko fii lu ñu sopp li tax ñu wax ne wax ju amul tuyaaba mooy jëpp wax ju araam moom ba koor ñëwagutoon bu koor ñëwee day gën a araam bakkaar ba gën a diis watar ku siwaaki ak bàyyi soccoo bi ropp bi ci aju tooy sopp nañu boo wooree nga bañ a soccoo socc bu tooy ndax ndox ma nga xam ne mooy bàyyikoo ci socc ba dañu ragal mu rëcc ci jàll te bu fekkee dafa rëcc jàll mbaa nga fàtte ko ba wann ko da nga war a fay bis booba neen ñi sax boo ko tayee te àgg na ba ci sa biir boo ko tayee mu rëcc la jàll ba ci biir ba yëmul ci bëlig waaye jàll na ba ci biir ba sax da nga war a kafaara boole ca wa tarkul mubaalaxati ak bàyyi jotal ga mu ëpp wala bàyyi dem nga dayo fil madd maddati ci kalax ndiku wal istinshaax ak sarax ndiku sopp nañu boo wooree di gallaxndiku mbaa ngay saraxndiku nga yemale ko ci buntu gimiñ gi ak buntu bakkan ba ndax bu rëccee jàll koor ga day dog